abonné leen ci xibaar yu wér mi ak ci réew. On les a demandé le next step. Après ça, qu'est-ce qui va s'en Jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas reçu d'informations relativement sur la conduite à tenir. Nous attendons de voir ce qu'il y a à faire et nous allons utiliser toutes les voies de recours pour qu'au moins que la vérité puisse triompher. alors li xew ci biir lu dul gàcce li ma li ma li ma métti suma réew ma ñëw pour contrôler suma fichier de parrainage pendant trois mois képp kuy sénégalais gis nga ñuy sillonné dëkk bi di dem wut ay parrain nga xamante ni mu méttee donc ñu ñëw tey pour contrôler suñuy parrain ñu dugg ci salle de délibération bi ñu présenter suñu clé ñu commencé exploiter la région de Dakar région de Dakar ñun ñaari fichier lañ ko def parce que bu matee dix mille tu es obligé nga ubbiwaat beneen fay bu ñu ubbee la région de Dakar sur dix mille parrains benn parrain sur date d'expiration bi kese moo am erreur mu exploité waa deuxième fichier dakaar bi amul erreur conclusion mu exploité la région de Fatick mu ne non bu ñu naree continuer nii on va passer la nuit ma ne ko mais loolu moo ñu fi indi foog ngeen exploité fichier yëpp mais boo tiree conclusion ne fichier bu baaxul man damay indi lii forfaiture la te effectivement forfaiture la parce que munoo présenter quatorze régions plus la diaspora candidature bu sérieuse bu mel ni président wu Thionia nga ñëw exploité ñaari région ci dix mille parrains am benn parrain bi nga xamante ne dafa am erreur de saisie sur la date d'expiration informaticien bi taxaw wàcc yàlla ne fichier mënu ko exploité loolu mooy lu ñuy naqarlu tey li nga xamante ne moom la ñu jëlee tey ci da ci salle de délibération conseil constitutionnel. ci gàttal ci gàttal candidature Thionia jàll. donc loolu la ñu wax ne candidature bi jàll parce que fichier bi mënuñ ko exploité. te bëgg naa nag ñu nit ñi lan mooy fichier bu mun exploité. parce que bu dee informatique kese la. fichier bu ñu mënul exploiter mooy fichier bi nga xamante daanaka mënuñ ko sax ubbi loolu mooy fichier bu ñu mënul exploiter mais fichier boo ubbi gis 10 yu leer nañ benn parrain mu am erreur de saisie nga ne fichier boobu mënuñ ko exploiter man je pense li ci gën a doy waar bu ñu génnee dañ leen ne waa ok comme nee ngeen fichier mënuñ ko exploiter ban taxawaay lañ war am ba moment bi ñuy wax amuñu information bi ñoo ngi taxaw di xaar bu ñu waxee taxawaay ba fu mbaxana doonee benn te incha allah candidature bi dinañ ko défendre caaxaan yi lañ war a mën a bàyyi ndax élection présidentielle du ay caaxaan ñu war dëkk bi pendant trois mois tey ñu toog même pas dix minutes président conseil nañu da ngeen war a saal salle bi parce que informaticien bi neen ak ni ngeen yàggee ci biir depuis douze heures ngi fi nga dugg pour quinze minutes ñu la nga génn donc je pense que c'est pas sérieux ce qui se passe dans ce